Wow wow. ñu bëgg rek nga wax ñu tuuti li nga xamante moom ngeen di faje ak euh, li nga yore nii lan la nga wax ñu métier bi ak euh, li nga xamante rek moom mooy ku am jafe-jafe yi nga xam ne euh, aju jaan màtt wala dara tey ñu bëgg rek nga wax ñu li nga xam ne rek mooy cosaan bi fan ngeen jëlee xam-xamu faj bi waaw ñun de wax dëgg yàlla mën naa ni àdduna bi yëpp ñoo xam Jaan àdduna bi yëpp ñoo xam Njóogu Njaay ndax man sama maam mooy Njóogu Njaay ndax boo dee dégg jasaw sakkur di nga dégg Njóogu Njaay mi daan togg ceeb yi ak Njóogu Njaay mi Seex Anta borom ci man koku moy sama mam, koku nak ñogu jaay dafa liggéey Serigne Touba ba Serigne Touba yiwi ko ci jaan na man sama mam, daan bay ba bay mi ñor mu daal koy jël lepp yóbbu borom Touba bi ko Serigne Touba ràññee nak leen ko ñogu jaay mun ko mun ko liggéey bi mo do liggéey man na mun ko ah mun ko ah mun ko dama lay yiwi mun ko ah mun ko am ah, mun ko nak mu lay yiwé di dem xefet ba lo dajal lo loo dajal boo doxee di dem lo dajal nang ko japp te xamni man Serigne Touba la jéglél sama mam niko waw am fit lool bi ko Serigne Touba ñaanalé paré niko doxal dem mu juk dox dem ba mu yàgg mu dajek jaan ni ah ma de sëñ Tuubaa dani bu ma génnee lu ma dajal naa ko jàpp te man jaan ji laa dajal te dinaa ko jàpp daal di daw daal jaan ji daal koy téye daal di tourné waat ci borom Tuubaa ni ko mbàkkee mu ko mbàkkee mu ko da ne ma bu ma génnee di dox lu ma dajal naa ko jàpp mu ko waaw mu ko man de jaan laa dajal te jàpp naa ko ana mu ne ko mu ngi nii sama kaw sëñ ni ko sigi xool ko ni ko njógu njaay mu ko mbàkkee mu ko jaan jooju nga jàpp def naa ko bis mi sa tey muy sa say doom ba say set fu fekk jaan dinañ ko japp ku jaan mat dinañ ko faj doole sen bamba bo jógee fi demal sa njaareem ko mak ci Serafal mu jangal la sari jaan ci la fofu non dem Serafal Serafal di ko jàngal bismillah yalla rahman mamar luma def tagu yalla def yàlla yalla assalamu alaykum jaan maliku salam jaan jaan juróom jaan def xol bop jaan di fodi bangor nan ko tukku neel te taxani nguru bonom son na yalla gudó teñu ko belalek jaan nan ko mu bat jaan mo fekke mu re jaan muté nan ko fekkutuma sanga ci teewutuma dirus nan ko lalatuma nak nag mukk inshallah kan ndagam som yalla nga mat ci ko nga mat suuf jaan ji mat lugu bi matuma dugg njol njolaan gëtal mag tiisuma këlër ba tay jox liflam yàlla liflam mamar liflam jibril liflam zarkal kitab nan ko tun he mun he wundu korobo korobo ene tiki tiki ene mete mete ene hala hala nan ko allahu akbar asadu anna muhammadan li bur la nan ko jippo jaan suuf jam dugg na la serafal mo jangal ñaan googu may tari nii moo ko sama mam sama mam jóge fofu non dal di ñëw bobak bobaak bobak ci jobas jobas bo ñëwee ba taseet fo ni keur njóogu njaay ñi japp jani ben la fi dañ la yob ba ca keur ga man ku jaan mat dama koy fajj ku jaan ne sa keur fima taxaw laa taxaw yor sama bejeen bi wax limay wax fu jaan ci kër gi mo fa tax sama loxo ñu fekk sama lool leer nañu adduna bi yëpp ñu xam nak man nak damay dimbali jam ñi rek ba amna am ñi defar ku ko tak du mat seeraan du la japp amna bejeen yo xamanteni mo ni yi ñoy mom leen samp ci kër mën na ni kep ku mako ko sa biir kër jaan du fa dugg du fa dugg waaw alors euh, très bien mu nekk xam-xam boo xam ne wax nga ko ci ku tedd kii di borom Touba radiallahu anhu ci ngeen ko jëlee euh, mais li nga xamante ne rek wax nga ko sànq mooy jaan dugg fenn est-ce que dañuy wax léeg jaan bi day lekk laalo bii day lekk xorom est-ce que nga ñëw ci loolu dëgg la am na jaan ju lekk laalo am na jaan ju lekk xorom ndax na man séeréer laa am naa ci lu ma bu la jaan ju mat bu jaan ju lekk laalo bu la mattee boo ñëwee kër baay jaan bu ma waxee li may ba tufli si béjjën bi ba la teg ci damay xam jaan ji mat ndax léeg nit day mat nit ànd ak moom sama kër ma lugu mu dama jékki-jékki ni la eh, ba nga ne ma ma xool la ni eh, la ba nga ne ma man la bayil bu ma lugaatee nga yëkëti ko mag yow kenn doon ko wax dama lay jëfandoo fi légui té ma la jëfandoo neefere nit lan lay jox nga soko nopi bu la joxul neefere nit bu toy xép do nopi ma daal lug nga bayyi alors très bien lool nek ay réalité africaine tay ñu gis ni li suñu maam ñoko fi bayyi won xam nga léeg ñu bër duñu gëm ni nit mëna soppé ku nek jaan est-ce que yeen am ngeen ci firnde ak wër day soppali ko doon jaan nit day soppali ko doon jaan kar la ndax pay ko ben dëkk village bu nek fi amna ko xamanteni ni juroom personne lan ñu ngi ànd di dox bi na dox ñew ba ci raay bi da koo sippi ñëw matt ki nga xamante ni moom la soxla matt ki nga xamante moom moo ko tax a jug te juróomi nit ñoo ànd mu sippi ñoom ñëpp ñëw matt ki nga moom la soxla te bu mu ko mattee daa faatu ba ñëwee ci ma dem leneen jaan ju lekk laaloo ko matt alors très bien kon yéen est ce que da ngeen déplacé wu jóge Thiès dem Dakar wala Saint-Louis wala sax Europe feneen fu munta nekk est ce que am ngeen ay kiiw déplacement waaw man day wax dëgg yàlla mën naa avion rek mais amul dëkk moo demul ci àdduna jàpp jaan jaan ji sali laa ko jàpp bërki demo Njaay moko ko tuba tubaab ngi taxaw sama téléphone ngi nii vidéo yaa ngi ci filmé yaa ngi ci bi ma jox li ma jox ci xaalis ak ay euro yëpp mu ngi sama téléphone bi fu ma woo ci jaan ci àdduna moo ko fekkee foofu naa ko jat mu jug ma yóbbu sama kër ma demee yóbbu ko sama kër wax ak moom mu ni teg ku neex ma jox la nga fotow kuma ma neex ma jël ko jox la nga yóbbu aw deug yalla loolu mom dañ ko yëngu mu nek xam-xam bo xamni ne na leer na naan ni aduna ba mu daj yeen yalla meena len ko euh mais tay est-ce que amul ñi nga xamni rek ay xonk nopp lañ wala ay endo wala ñeneen ño xamni ñew nañ pour xol ci adresse wu Pa Diane parce que dañ nan deug bu njëkk ñu ne endo yi dañuy maîtriser Diane te dañ dan ñew Afrique di ñew fi Sénégal di wut ci xam-xam est-ce que loolu yeen mu ngeen ko deugal deugal ndax man de sama papa man ay endo jugé nañu endo ñew fi di seet sama papa ànd ak sama papa sama papa di liggéey Eaux forêt ñoon nak mom dem ba ci all bi ben ende bu jigen bi daal di soppali ko doon jaan ende bu goor bi di dox bam yag yàgg mu ni sama papa xolal mu xol muy jaan mu xol benen ende bi gisatu ko papa di jet jaan ji di ko jet di ko jet di jet ba jaan ji tëdd mu daal koy jàpp génne paakaam nar ko rindi ende bu goor bi mu andalon niko bayil sama soxna la mu bayi mu doona nit ñu ko dañ lay yóbbu endo sam papa benen seex bi ni ko dem ndax bo demé dañ lay ñak dut ñu la gisati sam papa niko bal ma dem señ bamba mën lepp señ bamba mën xërem bal ma demé endo bu ma liggéeyee mu ñëwé mu doon señ jariñ sama seex papa niko do doo dem loolu confirmé la alors euh, lan moy doon sen numéro téléphone sen adresse ku leen bëgg a jot rek ak ku bëgg a jokkoo ak waaw waaw si adresse moom si Senghor la Kër Baye Diagne rëb na la xaadim foo taxaw ni kër kii Kër Baye Gueye tës ni boo arrêté dinañ la yóbbu ba suñu biir kër ku jaan mat dinañ ko faj ku jaan ni sa kër boo nu woowee ñu ñëw a jaan bu la mattee euh, jaan boo amee ndigg bo amé ndig buñ la takalé yaxu jaan xoma yaxu yew day est ce que loolu nga ko leeral deug la tey jii boo miti ni légui bala ma dem fi ci mbolami mi ku fi sa ndig miti waxuma yax bi dé yew bi la lay jox nga natako légui nga tagok mom légui fi waxuma sa yax bi dé yew bi la lay jox nga natako ba paré problème né séatit damay ray jaan yi ni diko ci fajj mi duma wax nag li ma mais problème né siyaatit ko am bo ñëw sama kër ma traité ko ci katun yalla né siyaatit la la wax jaan yi lay ray génn ci ci génné jox la ko nga diwoo ko neer bi dem ci katun yalla alors yow jaan yi ngay euh, est ce que da nga délo wat ci wala dafa am foo leen dugal wa dama am foo leen yóbbu sama kër daa am case yoo xamante ne nii ñoo nga fa boo la amee temps sax da ngeen fay ñëw xool si yeneen jaan yaa nga fa xëy na li sax dama bett moo tax mënu maa indi jaan yëpp démb bi ma sawaay di woo dama ne ko maa ngi mbuur mbuur leen moo woy waat jaan ma dem jàpp ji ko di guddee bi ma xëyee ci la ma woy waat téléphone mais yeneen xeet jaan yaa ngi sama kër ndax man ma jaan du ko bray dama ko yer sama kër yow boo ko yaree lan lay lekk moom lan lay dundee moom ay ginaar laa ko jox la may jënd ay ay ay ay cuuj wala may jënd ay nen wala mu ay lëkk sànni ko ko ndax moom moo reyal boppam quoi moom boo reyee du ko lekk da nga koy sànni mu wan la boppam. alors euh, très bien dañuy wax ni aussi am na sëriñ yi nga xam ne ñuy liggéey parce que gis nga Sénégal léegi ñu ngi wax ay xale yi dañu leen a sàcc ak ñi dañu leen a réer est-ce que du am ñu ñëw di leen laaj ay jaan di leen jox tegtal bu ñuul bu xulool ak ak yi ni mel. dëgg la man de man de jaay jaan man te Ndakaaru man na ay maara yoo xam ne ñëw ci man ma yëkkati jaan di leen ko jox du wax nag mais comme que télé télé nekk nii danaa wax am na ñoo xam ne dañuy ñëw jaan jaay leen ko 200000 ñii dañuy ñëw ma luy leen jaan 50000 xamuñ si jaan dara dama leen koy luy xamuñ lu ñu ñoo ko xam ñun rek ñoo ko ñemee ba ñoo ko ñoom ñu ma jaay duñ ko laal duñ ko jege dama leen koy jaay rek ñu dem mais duñ ko laal duñ ko jege waaw saa sant sëñ Tuubaa rek bu rajo Dunia Thiès waaw mais dama dégg ñu ni boo jàppee jaan en général bàyyi jaan am na ñoo xam dañuy rey jaan di ko togg est ce que dëgg la am déet waaw waaw waaw dañ koy lekk am na ñu koy lekk jaan dañ koy lekk am na ñu koy lekk ndax yeew yi nii dañ koy lekk sinuwaay dañ koy lekk nii nii fay na ma ci 200000 jaayu ma ko nit ñu li dañuy lekk yeew ndax boo demee euh, daare sëñ Saliou Mbacke xel kom rey nañ fa yeew ba tàyyi lekk ko kii amul dangar amul problème ndax yàlla ko tàggati nii kii ba amoon dangar du xaj ci àdduna ju daal moo garaaw ak vipère mooy ceebi bi tubaab naan vipère ceebi yooyu yëpp dama koy jàpp buy tëb mooy jóge fii naaw dem fële kooku dañ koy japp traité ko ba normal du def dara mais yeew mom ci borom ko tagat dana koy lek wa Sénégal da koy lek tubab da koy lek alors gi bi waro xayma ay atam ñaata lay wara a doon. am amugul sax at xalé la nga seet li ma ni amugul nii sax xat mom xalé la quoi nga li ni nga bañ ni gis ya, ni mom xalé la quoi. waaw kii bu mat mat ba ñii day day day toll nii waaw day day toll nii ki xale amagul un an. alors euh, très bien ñun seen adresse euh, ñu bëgg na nga fàttaliwaat ko wane ni toujours li fi mag ñi bàyyi woon. ba léegi maam bàyyi woon ko ba léegi mu ngi fi. mais est ce que amul lu ñu leen di moytuloo li nga xam ne rek ñu naan leen lii ko defee xam-xam bi dina dem est ce loo xamante ne rek euh, dañ koy. waaw wax dëgg yàlla de sama maam daana ma ak sama baay ah lii fi maam bàyyi bu ngeen ko yokkee doo leen ci gisati dara mais bu dee nan ko daan doxalee moom ngeen ko doxalee ba léegi amul lu ngeen ci mënta am ci àdduna muy galaji yi ni jaay laari jaan yo ngi gis ñaar fukki deureum galaji boko takke ñaar fukku jaan du mat seetaan du la jàpp doo lépp ci geet do accidenté forum de da ngay ci katun yalla ndax laari jaan bi dañ nan rek boko takke bu ci si biir miti dañ la tek laari jaan bi xoj ko ci ndox jang faatee ñetti yoon nan raay gu sedd gu ci katun yalla bu de ngelaw seetaan mo nek ci biir day dañ bu de lek bon gon la jox la dang koy genné ci katun yalla wa pour ndig limiti wa ku bëgg ñëwal ma génne jaan ji nga laxas ko sa ndigg waaw waaw ñëwal yow sax mëna naa la jox nga téye waaw jàppal boy ñun sefa boy ñun am seigneur lan la def bu da nga am rek nit bi daal di dañ kon mu jeex tàkk kon gars yi gis ngeen ah leer na naan ñi lii Cees rek la am xam-xam bi moom wax na ko fàttali na ko ci ay maamam lañ ko jëlee ba léegi mu ngi fii jógee ci ku tedd ki nag di Serigne Touba Khadim Rasoul dinañ jox di daje ci beneen numéro incha allah